liggéeyu marchand ambulant euh, nekkul lu yomb euh, ci diwaanu ndakaaru yenn saay nag du ñàkk ñi nga xam ne ñoo di ambulant yi lay ñu gis seen bopp euh, ci li nga xam ne moo di yile njaay ñoom nag li ñu jàpp rek mooy bëgguñu banque benn yoon seen yoxo wala sax ñu toog seeni kër ndax jàpp nañ ne ay responsable lañ waaye sax yenn saa yi ñu gis ña nga xam ne dañ leen di faral di tuutal ñeel li nga xam ne rek moo di seenuk liggéey waaye ñoom li ñu jàpp moom mooy y' a pas de sot métier. Euh, malgré tout y' de sot métier euh, liggéey moom liggéey la rek waaw ndax ku ñu fekk fii ci tali bi ñu si yenn suñu garab ngóot yi mbuus ko ba mu rafet nii nga taxaw yor sama kopp bii am na ñoo xamante ne euh, la ci encouragé am na ñoo xamante ne la ciy minimiser. ñun nag xaar ñu si maa dem ba xaar ñu si kenn lépp lu ñuy foraatu fii pour yóbbu ko dimbale suñu parents yi. di dencaale xam ne suba nañ nekk ay borom kër ni mel nag tax ba ñoom ñu jàpp ne rek saa ñu amee ab wér-gu-yaram ngir wàcc ci tali yi loolee ngir daan seen doole dañ koy def ndax xaaruñu lenn ci kenn bu ci xeeb sa bopp waa parce nit ki bu la fekkee ci la nga ne mu la ciy xeeb te yow nga xam lan lam lay jëriñ xam lam lay jëlee fam la jëlee ak lam lay dikkee war ngaa mën a am euh, fula bu mat sëkk boo xamante ne la ci bëgg a xeeb nga fulaal ko man boog de ma part personnelle man ci sama garab mbóot bi ma ne man étudiant laa man damay jàng mais ci sama sama garab mbóot bi ma ne ku ma ci fekk bu ma ma koo ñàkkal fayda wala nga bëgg ma cee xeeb man ma fulaal ko sama parce que xam naa li may jëriñ te xam naa li may fajal lu si tuuti tuuti man ci laay ji bu ma amee lu may lancé jeunesse sénégalaise mooy que ne nit ku nekk na góor góorgóorlu ci lam ne muy étudiant ak leneen ak leneen amul étudiant amul liggéeykat fii affaire de gëm-gëm kese hmm. nit ku nekk même bu fekkente ne yow da ngay jënd say mouchoir wala say leneen lu mu sew sew sew nga koy jaay bénéfice juróom sax boo ko ci am nga respecté ko te xam ne bu ëllëgee mën na laa jëriñ leneen. merci beaucoup waaw xam nga autorité yi man personnellement damay naan aw ma message ma leen di lancé ndax chaque jour ñoom ñuy romb fii ci tali bi dañu gis li may wax ak yow am na ay xale yoo xam te ne 15 ans 14 ans ñu ngi fii di daan seen doole te heure bi war na leen fekk ci école bi. Mm. di jaante ci école di jàng affaire yooyu nag. boo dem ba fekk xale boo am 15 ans 16 ans ba 13 ans yooyu mu nekk ci tali bi di dàqante ci oto yi di jaayaan di jaay xam nga yooyu dafa métti te chaque jour ñu ngi romb di ñu gis ñun nag euh, moo tax duñu am lan lu ñuy wax ak ñoom parce que bu dee ku gisul mën a wax mais koo xam te mu ngi lay teg bët chaque jour mënoo wax ci moom waaw looloo tax ñu dañuy sant yàlla dañoo jël suñu lépp wékk ko ci yàlla xam ne yàllaa fi nekk te yàlla dafa nekkal ñëpp. jàpp nañ ne nag ñooñu lay di autorité yi dañ leen a dégg waaye ab tànkam lu mu nekk ci wàllu wile batax sax ñoom ñu ne dañuy euh, taxaw temb ngir gën a rek jëmmal euh, seenuk njàmbarte loole ngir bañ a tàllal benn loon yoxo ñal li nga xam ne moom moo di du dox seen diggante ak seen i ñoñ